sunu koor ak sunu xeetu jàmm yàlla yëpp yu dul koor bi jaahi muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne ñuy wax ba léegi ci ngëneelu koor comme ni nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana def bu ñuy dugg ci koor muy toog ak saxaaba yi di waxtaan ak ñoom ngëneel yi nekk ci koor di leen wax ngir la saxaaba yi xam weer wu màgg bi nga xamante ne nii moom la ñu dëkkmal wala moom la ñu dugg ba tax na ngëneel yooyu it toujours ni ko yonte bi sallallahu alayhi wa sallam waxe woon mu ngi ci yàlla nañu yàlla dajale yeeg ngëneel yi nekk ci biir koor yëpp bi jaahi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax dafay wax ne man faraxa bi duxuli ramadaan xaramallahu jasadahu min an ni ala niiraan mu ne ñu ne weer weeri feeñ na nga kontaan rek yàlla araamal sa yaram safara ndax bég ci yëg ne weer wi feeñ na rek ñu araamal ci yow safara yonte bi sallallahu alayhi wa nag ne utiitu ummati xamsata ashyaa maanaam jox nañ suma xeet juróomi mbir yoo xam ne joxuñu ko woon benn xeet bu ko xam ne jiitu woon na xeetu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne bokk na ci ba ca jiitu mu ne heure buñ ne weer wi feeñ na ñu ngi commencé ramadan mu ne guddi gu njëkk googu suñu borom subhanahu wa taala dafay daal di xool jaamam yi nga xamante ne ni yëg nañ ne ñu ngi waajal pour woor weeru koor mu ne daf leen di xool bëtu yërmande loolu nag amul woon ci xeet yi weesu woon te wax laa ne fii démb ne la bu ñu xoolee koor du yàlla ci ñun rek la ko njëkk a wàcc ndax booy xool aaya aaya ba farataal ci ñun koor dafa naan yaa ayyuha alladina amanu kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum te tattaqun bon yéen gaa ñi gëm yàlla dama farataal ci yéen koor comme ni ma ko farataalee woon ci ñi leen jiitu woon ngir ngeen mën a am ragal yàlla bon koor li muy def ci jaamu ci ci ci jaam bi mooy fexe ba mu mën a am ak ragal yàlla moo tax jaamu yàlla la goo xam ne sunu borom subhaanahu wa taala yonent bi saasam daf ñuy jàngal ne ne yon ne sunu borom day wax ne saw asawmu lii wa ana ajzi bii koor man maa ko moom te man rek maa koy fay doomu aadama lépp loo xamante ne jëf na ko moom moo ko moom ba mu des koor koor suñu borom subhaanahu wa taala nee na moom moo ko moom te moom moo koy fayal boppam. mu ne jox bokk na ci yi nga xam ne jox nañ ko suma xeet ñaareel ba mu ne jox nañ suma xeet suñu borom joxe na ndigal malaaka yi ne su weer wi xasee feeñ la ñuy jéggalu xeetu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba weeru koor wi di jeex loolu yeneen xeet yi amuñu ko woon bon yow mi woor jàppal ne malaaka yi sax ñu ngi lay sàkkul njéggal waxuma malaaka yi waaye nee na lépp loo xamante ne am na ruux rek dañuy sàkkul njëggal xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi jant bi daf ñuy sàkkul njëggal weer wi daf ñuy sàkkul njëggal biddiw yi dañuy sàkkul njëggal xatta sa fi fil ah, ba ca jën ya nekk ca biir géej sax ña ngay sàkkul njëggal xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi ci weeru koor bi mu ne ñetteel ba bokk na ci ngëneel yi nga xam ne jotale jagleel nañ ko xeetu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne ah nee na anna raihatu famu saim atyabu indallahi min riihil misk ndekete xeetu gémmiñu ku woor moo gënal sunu borom moo gën a neex ca moom xeetu misk ba gën a neex nee na xeetu gémmiñu ku woor moo ko gënal loolu nag suñu ko waxee taxul rek nga bàyyi sa gémmiñ rek mu forox noonu lekk yi nga lekk yëpp nekk ci di xeeñ loolu moom waxuñu ko ndax bu loolu sax yaa ngi bàyyi bàyyil xel nit ñi ngay jege wala nit ñi ngay waxal waaw moo tax tey may nañ la sax ngay socc waaye dañ wax na boo soccoo ba tisbaar jot ba njolloor nga arrêté socc boo doon socc nga bàyyi socc waaw bañ koo boole it nag ak comme ñeen ñu mel ne ñoom deel xam ne fu ñu toll la ñu tëfli kooku moom leneen la am ñoo xam ne dem nañ ba buñ toogee ci seen biir salon sax dañu ut benn pot def ci suuf pour di tëfli rek waaw loolu moom dafa ëpp pour dama woor kon yooyu dañ ciy bàyyi xel waaye daal xetu gémmiñu ko woor sunu borom subhanahu wa taala sopp na ko woor ba nee na xeetu xeetu gémmiñ gi rek moo ma gën a moo ma gën a ba gën a neex ci yéen nee na xeetu gémmiñ ko woor moo ma ndax lu tax daf woor dafa nekk benn jaamu yàlla boo xam ne nit ki mën ngaa bokkaale yàlla lu nekk ba mu des woor mun nga am say xërëm yoo xamante ne yaa ngi leen di sujootal wala say nit yoo xam ne yaa ngi leen di sujootal wala say xàmb yoo xamante ne yaa ngi leen di sujjootal wala bokk nga leen di rayal sax ay tuur ay ay ay jur te deret di leen sottil waaye yàlla moom woor moom kenn du dem di ko defal sa benn xëram wala sa benn sëriñ wala sa benn tuur kenn du ko defal kenn du defal koor koor moom suñu borom subhanahu wa taala rek nga koy defal moo tax nee na jaamu yàlla la boo xamante ni yëg-yëgam amul beneen yëg-yëg bu ko gën a foor ci jaamu yàlla yi ba tax na nee na jaamu yàlla boobu diggante borom bi la rek ak jaam bi keneen ku ci am accès bu ci mën a xam dara moo tax dafay xam ne ki woor yow mi sa bopp yaa xam ne woor nga ak suñu borom subhaanahu wa taala waaw waaye keneen mënul taxaw ne seedal xanaa li mu ci xam nii rek moo ah diw de day woor rek nga ci xam waaye nag bul xam la ca biir waaw ndax diw toogu leen 24 heures yëpp toogu leen yéen ñaar waaw tey dañuy wax ne woor bu ñu xoolee dañ koy tënk ci ñett ndax dañuy wax ne sawmul awaam wa sawmul qawaas wa sawmul qawaasul qawaas mu ne wooru gu matale ñu ne woor bu matale mooy lan mooy wooru ñàkk lekk ñàkk naan ñàkk a sëy waaw woor boobu mooy woor bu matale lekkoo naanoo sëyoo mu ne sawmul xawaas bu mooy wooru jagle ñu ne ban mooy jagle mu ne wooru jagle mooy woor goo xam ne ginnaaw ba nga defee ñetti yéene lekkoo naanoo sëyoo ba pare ci làmmiñ bi day woor nga sàmm sa làmmiñ ba doo ci jëw doo ci fen doo ci rambaaj doo ci nettali lu ñaawit nag doo ci saaga doo ci doo ci xaste doo ci xuloo ndax ki ki woor sax du xuloo waaw wala dañ laa tere sax ma la xuloo waaye dañ tere sax dëgëral sa wax sooy wax ak nit ki di ko gëdd ko yuuxu dañ la koy tere soo ko mënee ba bako ndax lu tax parce que jaamu yàlla la boo xamante nii fii ak yaa ngi koy def rek di ko yàlla bëggee suñu borom da jege suñu borom ndax jàng nga de wax na la démb ne la yonent bi sallallahu alayhi wa wax na la ne nit ki bu bu ñu nee feeñ na premier guddi ga ba guddi gu mujj ga bis bu nekk suñu borom dana laaj ana kan moo may bëgg ma bëgg ko ana kan mooy sàkku jege ma ma jege ko ana kan mooy sàkk jégalu ma jégal ko guddi gu jot ba koor gi di jeex mu ne bon kay ba nga wooree koor jagle pour nga mën ko am dangay fexe ba sàmm sa làmmiñ waaye it yamu ci làmmiñ bi waaye nga sàmm say bët ba doo ci xollu lu araam sàmm say nopp ba doo ci déglu lu yàlla di tere waaye it sàmm say loxo ba doo ci laal yàlla tere waaye sàmm it say tànk ba doo ci dem fu yàlla tere ba léegi bi ma ñëw rek oto bi may dugg dafa fa teg bu fort ma ne ko waaw sëñ bi doo wàññi sa musique bi fort na de mu ne ah musique bi def fort ko man kay boo fayoon sax moo ma jëlal mu ne ah, xanaa bon bëggoo musique ma ne ko bu tey ma bu ñëwoon musique damay bég waaw mu safar bi ma gestu di ma xool xanaa mooy kii moom bëggul musique dara dara dara dara waaw fekk na booba lu nekk tolluwaay la waaw yàlla na yàlla suturaal ñu it yàlla na yàlla jéggal ñu sax dégg gi ñu koy dégg ndax léeg-léeg nga dégg ko doo ko bëgg a déglu waaw léeg-léeg moom danga dem ba am na wooy yoo xam ne sax boo duggee oto da nga koy xam waaw ndax te ci daanaka ci oto ci da ngay wala nga taal sa télé fekk ko ci ko yàlla ñu yàlla yàlla daal moo ñu mën a yërëm aha mu ne nga daal di jàpp ne bon cër yooyu yëpp da ngay fexe ba sa loxo du laal lu mu warta laal sa tànk du dem fu mu warta dem waaye it nga sàmmaale sa biir xëy na lekkoon naa no waaye boo dogee it fexeel ba bul lu aram bul def lu aram sa biir loo xamante soo xëyee moom yaa ngi dama dog naa rek mën naa lekk sama yàpp mbaam déedéet dog naa rek naa naan sàngara déedéet bon jàppal na biir bet na ko sàmmaale mu ne loolu lañ tuddee kooru jagle ginnaaw ba nga lekkoo naanoo sëyoo waaye sàmm nga sa bët sàmm say nopp sàmm sa làmmiñ sàmm say loxo sàmm sa tànk sàmm sa biir am nag buñ tuddee saw sawmul xawaasul xawaas maanaam lekk ñu ko jagle ñu ne boobu boor koor googu mooy lan mu ne da ngay def yii yëpp ba pare nag nga waral xel mi teg ci est que ñun mën nañoo waral suñu xel boobu nag jafe na boobu nag yonent yi ñoo koy am ak yenn nit yàlla yi du ñëpp yàlla yëpp ko man sax mais ñenn jagle suñu boroom ñu ko may seen xel di woor nga xam ne ñoom kat defe nañ ne suñu xalaatee leneen lu dul yàlla rek seen koor yàqu na ñun nag mun mënuñoo téye suñu xel ñu lu nekk la xalaat moom xëy na léeg-léeg sax bët bi am fu mu rëcc nga wàccewaat ndax dañuy wax ne kat xool bu njëkk ba yàlla bindu ca bàkkaar waaw jékki-jékki di gis dara rek wàcce sa bët doo ci am bàkkaar waaye boo ko fa delluwaatee di xool nag yaa sa bopp bàkkaar waaw jékki dégg dara kii nga ne nga xam ne baaxul nga daal di puus taal rajo bi rek mu am fu lu wax baax nga puus loolu dégg boobu nga dégg xëy na amoo ci bàkkaar parce que bëggoo woon a déglu loolu ndax ba nga ko déggee rek gaaw nga puus waaye boo fa bàyyee di déglu nag di xam pour nga xam nu mu demee nag ah yaa indi sa bopp bàkkaar moo tax mu ne la bon bokk na ci yi nga xamante ni ah mooy wooru jagleeg ñu ko jaglee mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci yi ñu xeetam bi ba tey mu ne ñeenteel ba mu ne li jannati ittaxasi mazinatu wa yaqulu tuuba li ibadi al muminin hum awliyaa yi mu ne day wax àjjana sa taar yëpp jàpp ko maanaam loo am ci taar rek ci weeru koor bu jotee mun a defaraat ko ngir lan ngir xeetu sayiduna muhammad salallahu alayhi wa sallam ndax ñooñu kat ñooy sumay awliyaa ñooy sumay xarit ndax lan ndax dañuy woor weeru mu ne juróomeel ba mu ne yaxfirullahu taala lahum jamian nee na sunu borom dana jéggal ñëpp ñuy woor ba mu des ñeent xam naa beneen yoon ne bu ñëwee dañ dem ci ñeent yooyu nga xam ne du leen jégal ci weeru koor waaye daal yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam nee na man saama ramadaana imaanan wa ihtisaaban xufira lahu maa taqaddama min zanbi képp ko woor weeru koor ànd ak ngëm yàlla te sellal ko yàlla jégal la say bakkaar yi nga defoon yàlla yàlla jégal ñu bi jaay muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu fasal yéene sunna